وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم waaw fas yéene sant yàlla julli ci yonent bi talib sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikhul Khadim di préparer troisième édition conférence daara sëñ Ibrahima Mbathio Seck waaw di ci woo sunu mbokk jullit yépp di ci woo mbokku Algérie di ci mbokk boo waa Louga yëpp di sant Serigne Khadim mi nga xam ne vraiment moo ñëw fii ci sunu koñ bi diñu jàngalal sunu doom yi ah yàlla ñun duñ si yemale ñuy chaque année ñu ko ñu ñun ñooy ñëw ñu parents d'élèves bi maanaam ñu papay xale yi ubbi conférence bi jox Serigne Diop mi mu wax woote suñ si jógee jox sëñ Abdou Seck aousu billahi mina seytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim barke borom Touba asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk taalibe mbokk jullit yi ñoo leen di siyaare te di leen nuyu te di leen woo si lii ñu fas yéenee defate muy fi ab tari alxuraan fii fii si gaar bi ñu koy wax district muy daay kan daare yi xaadim segg nga xam ne fii def def nañ ko bii mooy ñetteel at ñu di ko def fii fii si altieri si biir gaar bi muy tarab arxuwaan nga xam ne xale yi moom la fi xaadim yor di nab nab ñoom at bu nekk nag ñu fas yéene ko di ko def ren nag ñuy kenn ñuy jógaat ngir defaat ko di si woo nag mboolem ñi nga xam ne ñoom ñooy ndey daara yi di si woo ñi nga xam tamit ñooy bàyyi daare yi nga xam ne ñoo jur seen i xale indi ko fi si daara yi ñoom ñoom laay jëkk woo nga xam ne ak tam suñu dëkkandoo yi xam ne ñoom la ñu dëkkal muy fii Altieri diggante Altieri ak Sanc ba ndax ñoom ñaar ñoo jëloo kon ñoo ngi si woo mboolem ku dëkk Altieri ñoo ñoo ngi lay woo si sunu kan lii nga xam ne mooy tara Alxuraan bii ñu fas yéene def le 4 avril muy samedi 4 avril samedi lay tombeel kon ñoo ngi ñoo ngi si woo yéen ñi xam ne mbokk taalibe yëpp xam ne nag bawuñu nag kenn nag ndax bu ne mbokk taalibe rek wala mbokk jullit képp kuy woo kon kuy woo ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ñong lay wo si sunu bisub tari bi ñong la ci wo di ci ñaan nak mboolem mboolem lu ci way mëna def te yalla tax nga def ko ndax amna lu bare li xamne nal nañ ko ci muy bëgg na ci ay xéewal lu ci way mëna def ay xéewal bernde bawuñu kenn ko mom ñong kay ñaan mboolem julit yalla yi nga xamne atarab tarab la te bu ne tarab moy l'islam kon l'islam bu ne alquran mom moy lepp mo jëk si lip, kon ko nyong ñong ngi ci si di ci wo julit Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa rahmatullahi wa bokki yi ñoo ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen yëgal bis bo xamanteni ni nok yeen noko bok ndax bisub alxuraan la di bisu conférence bo xamni khadim sek moko organiser fi ci gar bi donga yi nga xamni ñom la doon jangal at mu jot lañu jang ci atma da am luñ cey feñal ren ji nak ñu ñu di koy japp le 4 avril fii nga xamni samedi lay tollol fi ci gar bi allahu ñu di ci woo ñëpp nag ndax bis la boo xamante ni nii ginnaaw nit ki su juddoo alxuraan la ñuy tifli ci nopp bi man sax gis naa dem naa ci tudd moo xam ni dañoo boole alluwa ak liir ba indaale loolu nag saa bu ñu koy def yàllaa nga naan bu leen wor ndax kat tey jii man ngeen yaakaar ak sama téere bii rikk bu gone gi màggee ni ngeen ko dugal ca daara ja te it bu sama téere bii jógee ak i mbiram na leen saf loolee nag ngir mu safnu mënuñu ko wone fenn lu dul tey jii ndax ki nga xamante ni ab leer la xamul ci boppam dara dañ ko ko waxal ki nga xam ni it ab néew la xamul ci boppam dara dañ ko ko tifli waaye fi nga mane te tal ko yor sa ñeenti dërëm wala nga yore sa téeméer wala nga yore sa mbub mu rafet bis ba nga koy feeñal ak fa nga koy feeñale yàlla ma nga lay xool ñoo ñooñee nga xam ne nag sañse nañu ba jekk muy góor wala jigéen te yor seeni poos te mën a ñëw ñu ngi leen di woo ndax bis bi kat soxla na lu bari ndax donga yi soxla nañu ay téere soxla nañu ay laltu soxla nañu leneen ak leneen soxla nañu ay alluwa soxla nañu lu baree baree bari loola it ñu leen koy yëgalaale daara ji nag sëñ Ibra Mbathio Seck moom lañ ko tuddee du ak bokk rek a tax da doon koo xam ni nii saa bu xëyee téereb alxuraan lay ŋàbb su demee ca barab bam ba muy liggéeyee moom lay ubbi di ca nekk ba ngoon daara yi kaamil yi ngay dégg Serigne Touba mu bàyyeekoo ca këram nekk ci dëkk bi yu ci bari moo ko jiite woon ku yelloo te tuddee bis bi la kon boog ñu di ko fàttali waa këram xamal leen ni leen ginnaaw bu doon dooma kore gu jot ngeen xottil ko bu doon dooma da ko wutal mbootu daara la kon bu fekkee ni am na ay yére daara ja yéen war yéen la war te bis bii mooy bisub daara ji la kaat kon ñu leen di fàttali loole di ko fàttali judi ñëpp nag bëgg kenn ku nekk xam ni bis bi bisa ñi nga xam ne nag dañoo doyloo daara ji indi seen doom mu ñëw fi seen doom bu fi feree ji wala mu jàng fi ab araf na leen wër ni bor boobu mënuñu koo fay kon boog xaadim toppantewul ak yéen alal waaye bu sañoon bis bii kenn ku nekk da nga ko yëgal sa mbokk yëgal ko sa morom yëgal ko sa wëllëre yëgal ko sa dëkkandoo ngeen àndandoo dikk bu tisbaaree mu fekk leen fi ngeen toog ci seen i chaise lu gonee tari ngeen déglu ko bu kenn nag doomam tari tax mu dem déedéet ndax day mel ne kon sa dooma la fi indi woon bu la fi alxuraan indee daal soo xamante ni tari jot na na nga fi toog ba tari bi jeex nga doog a dem kon doog tari baa noonu incha allahu bisub lislaam la bisub alxuraan la bisub jullit ñëpp la bëgg nañ ñëpp teewe ko yàlla nañ ko fekkeeg jàmm yàlla nañ ko fekkeeg jàmm te ànd ca ak jàmm jullit ñëpp te mu weesu ak jàmm te ku fi dikk loo fi ñaan yàlla na la ko yàlla defal boo fi indee wopp yàlla na nga wér aaju joo fi indi na faju lu la naqari lu nekk yàlla na fi dañee Baye Mamadou Seck nag lañ ko tuddee Baye Mamadou Seck nag suñ ko ko tuddee fii luñ ko mën a tuddee ci jamono yi soxna Maguette Thiam mooy daal di doon présidente ba ndax dëkkandoom ju ju ko ju ko ju ko rafetal du mu moom la te loolu nun seede nañ ko ñun ñi nga xam ne suñ ndey dafaa nekkoon mu wuutu ko gannaawam kon jërëjëf soxna si ñu ngi lay xamal ni yaa ci jiitu yaag say bokk am nak bis bi na ci ñew bu soba yalla mba nak añ ka sax mom boy bo nga jëm ko fagu rek ndax yaw la war kon bok bis ba ak nonu jigen ñi ma ngi leen koy fatali bu baaxa baax di ko ñepp dik dikk daal lañ ci bëgg ak di ñew ca table ja tay tek te di fa teg dara di wàññeeku te te di ko tegal ñëpp nag fàttewuñu kenn sëñ Modou Makhtar Seck ak mbooleem lu mu yilif nag ne la wóor ne xaadim daa nekk ci daara ji rek waaye daara ji sa daara daara ji daara yi sëñ Abdou Seck la ak Cheikh Moustapha daara yi seen baay maam Banda ak seen i rakk kon boo ngeen xam ni bu fekkente ni yéen a moom daara ji dañoo da caa war a feeñ dañoo bëgg li ngeen am lépp ngeen indi ko te teel a ñëw te toog fi ba mu jeex bokki jullit yi bokki taalibe yi ñi nga xam ne ñooy sonn ci daara ji di ndey daara yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di sant bokk yëpp kon soxna Maguette ci am baa nga noonu soxna Fati Banda Seck bis baa nga noonu El Hadj Abdourahmane Seck bis baa nga noonu Amar Seck ak rakam Dame Seck bis baa nga noonu yéen ko moom Mbaaco Seck moom Baye Sam bis baa noonu El Hadj Fallou Seck nag yal na ko yàlla yërëm moom ku ma ku taxawu borom bis bii la ku taxawu it bis bii la woon waaye nag wàlla ma ngay ñëw ca kanam kon bokk yi 24 avril muy bis bi nga xam ni indépendance la ci senegal amoon ñëpp di ko sargal ci fànn gu nekk nan ko sargale ñun ci alxuraan ci togg ceeb yu neex nag sañse sañse bu rafet teel a ñëw tey dem ca taabal ja di jaabante gone yi tari tari bu rattax wasalaamualeykum wa rahmatullahi le 4 avril la incha allah jërë ngeen jëf. salaamaaleykum maa ngi leen di di sant di leen ñaanal lii nuyu sumb ci dugg bisimilah rahmaani rahiim gën conférence bu nu fas yéene defal gone si gaar bi daaray Xaadim Seck ñun ñi ndeyu daara ji noo si fas yéene yéen lépp luñ ci am soo ba ngoon jot si kàttan yàlla lu nu mën lu nu mënul yëpp bëgg nañ ko def incha allah si kàttan yàlla invité ñëpp képp ki nga xam ne yaa ngi si Louga gi noonu leen di invité bi bu neexee sunu borom yéen ñëpp nag leen di woo nag si yendu beeg si tari beeg yëpp nag leen di woo si kàttan yàlla yàlla na ko yàlla mottali xaadim kenn amul fayam yàlla mi am fay yàlla ko yàlla fay wax dëgg yàlla sonn nu dara ci daara gi lu nu bëgg suba ba ngoon jot xaadim mi nu koy defal suñu daara gi suñu dong yi sonal nañ ko guddi sonal nañ ko bëccëg luñ ci bëgg yàlla na ko yàlla defal yàlla na dund dund dund ba dund sàppe ko si yi muy jàng yàlla na dund ba gone di ko awu si daara ji si kàtt na yàlla yàlla nañ ci dugg bisimilahi rahmaani rahim gën si alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di ñaan bis bii yal nako yalla yegal yeggali ci kàttanu yalla ak sun borom xaadim sek mi ko sun di taaw Mamadou Seck fu mu yegg yal nako fa yalla yegalé moo ki rakkam maa ngi len di ñaanal bu baax ndax man may seen tante nek ak ñom ci fakkatalul ma ci dara ma ngi wo ñepp nak di woo waa Cekkeen di woo Njang di woo waa ba Banda ak nijaay ibrahim wa kër ibrahim ak ji abdou ñu ngi woo ñëpp bàyyiwunu kenn dama mën a wute wax nag waaye ku leen sant laa moo ki rakkam ak waa kër sëñ Louga ak waa Càmbeen ak waa kër Baye Sam ak waa kër Baye Fall maa ngi sant ñëpp di woo ñëpp cekkeen gépp bis bi nag Baye Mamadou sekk lañ ko tuddee baayam bi mu ko tuddee nag yelloo na ko ndax alxuraan doo nga ko ñoroon man mi nekkoon ak moom xam naa ni ci alxuraan la daan dund ci la yëngu kon bis mi yàlla na mel noonu ما دل ساقبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى